Aly Niane xam nga ko. waaw Aly Niane Aly ca daf ma ni. ne Aly Niane daf ko ni. jamono jii ñu toll de. jamono ji ñu toll day boo ci dee gis ku mel ne Serigne Fallou. boo ci dee gis ku mel ne Serigne ci dee wut ku mel ne Serigne boo ci wut ku mel ne Serigne Fallou. doo ko gis doo ko gis. mu ni gor la. mu ni Serigne Fallou gor la. kilifa la kilifa la. yàlla bu baax yàlla bu baax la. man ko lu tax man ko lu tax. daf la defal dara daf laa defal dara. munuma waaw munuma waaw. munuma alxames bu ne. munuma alxames bu ne. danaa dem danaa dem. ni ko sama jabar wasin na ni ko sama jabar wasin na alxames bu jot biig. sama jabar wasin na biig. sama jabar wasin na biig. mu jox ma xaalis mu jox ma xaalis. jox ma ceeb jox ma ceeb. jox ma dugub jox ma dugub. bu alxames dellu bu alxames dellu see. ma dellu si waat ma dellu si waat. ni ko wasinaat. <laughs> waaye nee su ma ko joxee rek. nee waaye bu nee bu moom Aly ñaan ne bu ko waxee sëñ Fallou rek. mu daal ni may jox. ma am moom lu toll ci ñaari at. ma am moom nag lu toll ci ñaari at. rus nag rus daal ni ku baax a ngi nii woo sama doom woo sama doom. ni ko man kat ni ko man kat. dama bëgg a seeti sa baay Fallou. dama bëgg seeti sa baay Fallou. te bëgg ñu ànd te bëgg ñu ànd. suñu demee nag bu ñu demee nag. dama naan yow laa ko tudde man su ma nee Fallou. nang ma ni Mbàkke. ma ni Mbàkke. xale bi ni waaw góor gi xëy si ci kër gi fu xale bi rek xale bi ni mbàkke mu ni kii mbaa du rëcc mu daal di ànd ak moom dem ca saalu sëñ Fallu ñu toog di waxtaan di waxtaan ba mu yàgg mu ni doom ji ni pat mu ni moo fàllu doom ji ni pat waaye kii xanaa du fàllu yàlla mu nga man damaa tudd fàllu sëñ fàllu ni ko waaye tuddal fàllu ba rek waaye tuddal fàllu ba mais mais kooku kooku kan moo gën a baax ci na